vous me permettez sur ce mhm. point vraiment dama leen di rejoindre que xale yi ay jàmbaar lañ mhm. te wax na waxu responsable mhm. encore une fois c'est vrai que émotion am na ci mbir mi comme parent yëpp comme tout le monde mais nag nit ki aussi lu am santé moom lu am walla médecin émotion bi da koy jéem a wàññi tuuti jéem a xool mbir mi ni mu war a demee soo seetee Wuhan quelque que soit alpha chinois yi jël nañu ay mesures yu am maana te aussi feebar bi kenn ñaanu ko yàlla mais nit ki su ko naree am su ko naree dal. mu dal ko Chine moo gën mu dal ko fi. Hmm. parce que expérience bi Chine am. ci hmm. feebar bi. Hmm. beneen réew amu ko actuellement. même États-Unis am nañu expérience bi am nañu xarañte bi et cetera te jël nañu ay mesures yi nga xam ne aussi beneen pays mënu ko jël. jël ay drone de suivre ay nit. ne nit ki kenn du génn Amérique mënu ko keneen mënu ko keneen mais. comme on dit, ce sont des pays aussi qu'on sait c'est des euh, c'est des pays totalitaires le plus souvent mhm. maa ngi jégalu ci kàddu bi mhm. ñoom suñu waxee suñu waxee nii la nii la keneen du ko jéggi mhm. donc mesure yu ñu jël mun nañu wax ne que am na solo lool te mun nañ ci génn te aussi nangu nañu leen aussi soo gisee ñu déclaré que urgence sanitaire de portée internationale ça veut dire ko nangu nañu experts internationaux ak OMS dugal ci seen loxo ñu dugalante pour que affaire bii gën a. Euh, yem ci loxo. donc mun nañu wax ne que mesures yi am na euh, il faut être optimiste te aussi même ministère la santé jël na ay mesures ñii. Euh, cellule psychosociale bi ñu doon wax sànq. ñoo mhm. déggee. Mhm. ministère de la santé moo ko moo ko moo ko teg. Ah am na actuellement comité de gestion des épidémies bi ñu teg ministère de la santé le ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf moo ko teg am na ay commission yëpp. commission psychosociale ñi xam ne psychiatre fan yi ak psychologue yi ñooy waxtaan ak famille yi ñi fi nekk ak ñële aussi di leen dalal pour xamal leen ne euh, mbir su xewee aussi da ngay ànd ak sa xel. Hmm. Euh, ñu jéem a seet naka lañ koy régle bañ cee demoo demee émotion. Hmm. loolu aussi naka nit ñi xam te aussi réseaux sociaux si bëri na ay information hmm. mais seulement information nañ ci. Euh, lépp lu ci am ñun dinañ ci communiqué ni mu waree. alors Oustaz boo amee laaj wala booba boo xam ni pour docteur la. waaw mais bon pas bon pas nécessairement laaj. mais en tout cas li fi suñu mbokku euh, Serigne Cheikh Mbacké wax Cheikh Mbacké dafa finalement lu bëri sax si li ñu waroon commentaire daf ko kii. daf mhm. ko daf ko daf ko tëj. parce que déjà ni mu aborder problème bi mooy que problème mu nit la du problème mu sénégalais wala burkinabé. Mhm. loolu moom si gën a neex. moom mhm. mooy que il est conscient que ñi nekk foofu ñëpp ay nit lañu doomu aadama lañu. que que ngay sénégalais ngay ngay ngay leneen loolu nga ñu war a gisee feebar man laa dernière fois loolu laa wax parce que bon li dal ci kaw Chine quand même yombut. Mm-hmm. Mm-hmm. te mun na dal fu nekk te mun na dal fu nekk donc ñuy. Mm-hmm. ñu bu dara bu dara dalee nit moom li nga njëkk a def mooy que pour man xoolee ko bëtu sa frère quelle que soit nationalité bu mu nekk loolu dafa am am solo. Euh, bon dañuy ñaan yàlla effectivement que suñu suñu ñi nga xam ne ñoo suñu karange ci wàllu euh, frontières yi mais aussi ci wàllu wér yaram ñu teel a anticiper. aussi parce que c'est mm. une réalité c'est devenu une réalité beneen bi euh, peut-être sama sama xam-xam màccu si lool moom mooy ku xam Chine xam ne bu amee lu mel ni lu ko dal répercussions yi dafa rëy te répercussions yi du si wàllum wér-gu-yaram rek te lu mel ni su amee muy état muy secteur privé muy ñëpp dañu war a anticiper. Euh, parce que dafay am ay répercussions yoo xam ne peut-être dina mën a gën financièrement metti pour ñun ñëpp. parce que wóor na ma ni la daan jóge Chine. di wàcc Dakar tey jii nii soo demoon ci douane bi nga xam ne suñu xaalis foofu lay jógee. wàññeeku na lu bëri Chine li muy defar ci àddina bi dafa bëri. donc man damay invité euh, Sénégalais yi. di invité état di invité ñëpp pour que ñu commencer réfléchir un peu sur weer yii di ñëw feebar bi am na mais beneen feebar muy feebaru gafa gi xaw ma poos bi dafa nar a ñëw parce que c'est une réalité on est un petit pays te ah kenn mënu ko ometre te ñun dañuy dañuy xool benn côté rek bàyyi beneen côté donc li li dina daan na soxla benn affaire boo xam ne daan jóge ci ay conteneur di ñëw mënatoo am accès parce que wara mu ne ambassade bi ñu fa daan déposer visa tey répercussion yooyu ñun ñi nga xam ne ay pays yu néew doole lañ loolu dañ ko war a teel a anticiper commencé yaxanal commencé réfléchir sur yeneen stratégie pour que yenn entreprise yi bañ a daanu BTP bi dafay jóge bëri na ci aliment alimentaire bëri na daal lépp li nga xam ne eh, douane produit douane bi xam nga te te loolu dafay impacté ñu intégré ko mhm. politiciens yi intégré ko muy pouvoir muy opposition muy société civile mais que citoyens aussi ñu commencer di réfléchir autrement comment suivre survivre financièrement parce que mënoo fexe ba du am benn impact si suñu économie Charles Bouba a raison Singapour xam nga maa ngi ko doon maa ngi ko économique non maa ngi ko doon cité sànq xam nga li tax mhm. foofu déjà constaté nañ ni vingt pour cent de mois aéroport ba ñu fa daan wàcc euh, am na mhm. taxi yi tamit travail moins état bi jël dogal ne fi nekk trois mois comme déjà gis nañ ni fan yu njëkk ñi rek Chine li ñu fa doon jëflanteeg ñoom dafa 13 euros. 13 euros taximan bu nekk dinañ la jàppale fi leeg mois di la verser 13 euros parce que sa recette gis nañ ni wàññeeku na ndax coronavirus bi. mooy manque à gagner bi. moo ko jàppale ay mm. euh, taxes mm. non c'est pour dire qu'il a raison. la crise économique oui mm. qu'au plan économique. Ah effectivement il va y avoir un impact mais man damay dellu si docteur. Ah pour laaj la euh, caméra thermique euh, defe naa tudd nga ko sànq. Mm-hmm. aéroport Blaise Diagne. mais est-ce que loolu doy na ndax ñi wàcc ñi ngi ñi ngi ñi ngi désinfecté avion yeeg ñi ngi pompé ak bon damay gis un peu ci yeneen image yi feneen. Mm-hmm. bon loolu la ñuy def. ma ne ndax fii tamit ñi ngi koy accompagner loolu quand waaw euh, d'abord pour dire effectivement que euh, caméra thermique yi mooy li nga xam ne nit ku su soree sax soo ñëwee di nga xam ne kii am na fièvre am na fièvre déjà am na ñaar te normalement ñett ñu ngi leen di eh, eh, ñu ngi leen di installé hmm. dina dem ba nekk juróom hmm. ça c'est un avion moom toujours xam nañ que dañuy désinfecte tout le mm. temps dañuy désinfecte donc loolu am mesures yi moom vraiment macha allah pour l' instant mun nañu wax ne que problème amul te aussi am na ambulance ah, mais mais docteur doguma la dañuy désinfecté mooy booy jógee fi dem feneen wala boo jógee feneen di ñëw non sooy ñëw mm-hmm, sooy ñëw ñuy ñëw avion bi dañ ko désinfecté soo ñëwee mm-hmm. mais kuy génn moom mesures yi pour l' instant defuñu ko parce mm. que réew yi quand même amul benn réew je pense ñi nga xam ne sooy génn ay désinfecté yu garaaw mm-hmm. yooyu et cetera mm-hmm. loolu amul. Mm-hmm. mais surtout les gens prennent les dispositions. pour avions yi ñëw. yi ñëw yi ñëw surtout ñi nga xam ne provenant de là ba mais aussi remercie aussi une collaboration aussi des services aéroport de euh, de l'aéroport. notamment les services de sécurité. le commissariat spécial de l'aéroport les forces de défense et de sécurité la haute autorité de l'aéroport également collaborer nee naa leen am na benn benn jour c'est un ga on nous a signalé on nous a signalé peut-être une personne bu waroon jógee waan wax nañ ko ci ah réseau yi mais loolu <laughs> vraiment c'est vraiment la collaboration des forces de sécurité mhm. qui ont mhm. en tout cas bi ñu jotee information ils ont signalé et ça a été partagé mhm. et la compagnie en question a été sommée de ne pas embarquer la personne. donc que... vous collaboration bi dafa am te aussi il y beaucoup de travail qui est fait en amont. premier les premiers cas qu'on a eu en entrant ici ñoo xam ne dañoo jógee Chine xam ngeen fan lañ leen kii du aéroport de Karang police des frontières moo leen jàpp au niveau de la frontière terrestre. dañoo wàcc Banjul. Mhm. Banjul lañ ñëwee jël bi Mm-hmm. waaw ay chinois yu fi bëggoon a dugg oh, dugg nañu dugg nañu amul problème dugg nañu mais bi ñëwee. Mm-hmm. police moo leen jàpp. Mm-hmm. téléphoné ñu jël ak contact ak service de sanitaire yi. ñu jël passeport yi. photo. Euh, photocopier passeport jël kii bi. jël seen adresse complète. ak fi ñu jëm. et cetera ñu téléphone ba am toutes les assurances bàyyi leen ñu dem. parce que c'est pas inter encore une fois on n'a pas fermé les frontières. on n'a pas empêché nit ñi pour ñu mhm. circuler. et l'OMS aussi organisation mondiale de la santé. ci recommandation am la ñu tënku pour mhm. xeex feebar bi mais aussi mhm. ils ont dit de ne pas prendre des mesures inutiles pour entraver la circulation des personnes et des biens ou bien le trafic international mhm. mais comme ni ko Bouba waxee aussi vraiment Chine c'est toute l'économie mondiale actuellement ah, qui a tremblé parce que Chine ku nekk xam ne c'est un géant économique et Wuhan c'est 11 de personnes mais mais 11 à, à 30% de l'entreprise mondiale. Voilà. 30%, donc, un, pour dire un sixième sur l'économie mondiale. Oui, donc pour dire que euh, le problème économique day am à part que le problème d'abord sanitaire mais le problème économique mu ngi fii te loolu yëpp les gens en feront face mhm. par rapport à ça soo gisee ñu déclaré ko urgence sanitaire de portée internationale c'est pour que adduna nekk na problème adduna bi yëpp adduna bi yëpp mooy lëkkaloo pour xeex mhm. actuellement euh, oustaz balaa ñuy libérer docteur xanaa boo ci amee baat rek euh, bien sûr bien sûr boo te aussi oustaz mhm. peut dina ci ñëw sax mais soo gisee quarantaine defe naa ñoom ñoo gën a xam lu mu tekki ci hadis yi par exemple feebar bu am ci dëkk naka la ñu def pour loolu tamit oustaz yi maanaam selli yi. loolu moom mën na doon aay loolu moom mooy